de maa ngi si ndugg mi ak euh, pataas tey moom loolu laa fi jaay mais démb indi woon naa fi kaane salade mhm. ak basanta trop sax bari na trop ndax boo xoolee fii da ngay teg sa bagage léegi oto ñëw nga war koo toxal nga yëkkati toxal mu teg mu gaare otom génn war a génnaat nga dugalaat sa bagas loolu tamit xam nga bari na coono trop macha allah fii daal actuellement